tay nak ñi ngi bëgg waxtane li ñuy tuddé xubbul watani li ñuy tuddé patriotisme patriotisme moy lan xubbul watani nga bëgg sa réew nga bëgg sa réew lu am solo la nena na al watana ni'matun min nicamillahi alazim allati la tuqaddaru bithamani ولا تصام بالأموال والأرواح بل تبذل الأموال لأجلها وترخص الأرواح في سبيل وحدتها والدفاع عنها نينا خيولو خمس ريو تبغكو نينا أمول لكو من ويج نينا دو ألال أمول نجك للي وني ريو أمول نجك dañuy jël alal di ci def ngir mën a jëriñi réew léegi léegi réew mi laaj ñu défendre ko ba bakkan des ci ñu joxe bakkan ya ngir réew léegi léegi mu laaj alal ñu dajale alal yi def ca ngir muccal réew xam nga lu tax li ko ñépp bokk nga mën a sauver ay vie yu bare bare bare ay dund yu bare nga mën leen a sauver ci sa benn bakkan yow ay dund yu bari nga mën leen a sauver ci sa alal yow yaa ngi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu moo tax nit ki xam ne moom dafa war a bëgg réewum parce que du hasard yàlla juddal ko foofu yarool ko foofu màggale ko foofu jaxase nature ak natiiru réew mi ñu jaxasoo ba fu ñu ko tuddee mu di ko yëg nee na loolu du hasard nee na itam baat la rekk bu ñu mën a wax mu gàtt waaye maanaa mu yaatu la nag bëgg sama réew waaw nee na maanaa bu yaatu la lool nee na sunu borom la soob muy dem ba léeg-léeg mu dëxëñ nit ak réewam mu jaxasoog deretam ak yàppam ak yuqam ak yuuram ba bu bëggee bu déggee tur wi day am lu muy yëg ci biiram nee yëg-yëg yooyu di nekk ci biir nit loolu du lu nit di defal boppam dëgg la am na lu koy gunge nag maanaam jëmbat la moom dañ koy arrosé di ko suuxat pour mën a firndeel cofeel googu di daw ci sa jëmm ndax dafa am lu làqu ci biir loolu mooy nangu dogalu yàlla ci fim la boole nangu dogalu yàlla ci fim la boole gërëm dogalu yàlla lu tax mu wàccale ci suuf bi lan nga fi war a liggéey lu tax yàlla tànn fii mu andi la ci suuf si yow tànneefu yàlla boobu kontaan ga nga cay kontaan loolu mooy bëgg sa réew mais du bëgg ko pour nii rek waaye da nga da nga xóotal sa xel ka yàlla moo tànn ma ñëw fii la yonent daan wax ci màkk yàlla moo tànn ni fii la bëgg ma nekk bëgg-bëggu yàlla boobu ndawul ci jaam bu ràññee ndawul ci jaam bu ràññee moo tax nee naa nit ki bu bëggee réewam nee na dafay def yitte ci jéema a waa réew ma nee na xamuloo ne bàyyi ma yi sax dañuy dem ba yëg ne ñoom dañoo bokk ci gox bi am nay bàyyi ma ci bàyyi ma yi boo leen toxalee fa nu dëkk rekk nu dee ngir mooñ gi nu mooñu boo leen toxalee fa ñu dëkk rekk ñu génn àddina nee na yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon màkka la lool dem na ba bi mu taxoo madina yëg nañ ne cofeel gi mu amoon ci màkka bokkul ak bi mu am ci madina boo demee ci saxiihul buxaari ak saxiihul muslim yëpp da nga fa fekk ñu indi benn ñaan ne daan na ko ñaan xataa soxna Aïcha daan na ñaan allahuma habib ilayna almadina ka xubbina makkata aw ashadda ah yàlla man de màkk laa juddoo yaroo fa moom rek laa xam ci man la bokk dama ko bëgg yaa ma indi ma diina muy sa dëkk sunu borom maa ngi lay ñaan yàlla nag ma def ma bëgg ma diina ni ma bëggee màkk walla sax nu raw ni ma bëggee makk def ma ko ma bëggee ko madina parce que madina kat yaa ma ko tànnal moo tax moom laa war a gën a bëgg loolu li muy tegtale mooy nit day bëgg fa mu nekk day bëgg fa mu nekk donte mbëggeel ga nag du yegg ci la waa bani Israël defoon bu leen yàlla ne génne leen sax nu lànk xolo fi yonent toll ci màkka digg bëccëg la ko sunu borom ne doo fi yendu doo fi fanaan tey mu takk bagage yi ci bés bi dem fanaanu fa bëggatu fa dara saxaaba yi ko gëmoon te topp ko am na ñoo xam ne ay boutique lañ fa yoroon fa lañ bàyyi boutique ya dem seen yoon te xamuñu fi mu jëm xamuñu ko ay patriote lañ kat bëgg nañu seen réew waaye wecciwul ndigalu yàlla ñu ba fa lépp dem topp Madina yegg mu tàng jër ñuy feebar di mar di xiif di sonn di tumuraanke nekk fay doxandéem te fële ña nga aisé woon nekk fa ay millionnaire di fa ay kilifa tey nga nekk doxandéem ci lu matul une semaine mais yàllaa la ko jar yàlla jaa ko jar moo tax nee na mbokk yi إن للوطن حقوقا ومن حقوقها أن يسعى الفرد للحفاظ عليه ويعمل على تنميته وازدهاره فحب الوطن ليس كلاما يلقى بل هو سلوك يظهر من الأفراد في كل مكان وزمان بقي نين بقى سريو دفع أم أي حق yoo xam ne moom la ñuy xamee ni kii ku bëgg réewam la mooy taxawaay bi nga ci war a am kenn ku ne ci ñun ci jéem koo naatal ci jéem koo avanceel ci jéem koo def mu nekk réew mu am sécurité lépp luy baaxal dund nit daal taxaw ga nga cay taxaw loolu ci àq boo ne dama bëgg sama réew loolu ci àq yi la bokk ndax ñun dafa bokk ci li ñu xàmmeewul li ñuy tuddee patriotisme ak militantisme loolu ràññeewuñu ko ràññeewuñu itam supporter ak amateur loolu ñii defe sport xam nañu ñaar yooyu wute nañ bu baax a baax a baax a baax a baax xamuñu itam bëgg lu baax ak bëgg sa bopp yooyu duñu benn yi nak bu ko nit ki jum dana juum ci mbeugelam neena bëgg am réew du ay wax manam man dama bëgg Sénégal man sénégalais la man dama fier pour nek africain man dama am fierté pour nek sénégalais Dedet, neena wax joju baxna mais affaire bi du waxi kessé neena ay jëf la neena jéxantal yi jógee ci nit ñi di fën ci place bu ñu mëna ne ak ci jamono bu ñu mën a nekk loolu mooy firndeel na ñii ñu bëgg seen réew lañu nee na bokk na ci itam nga respecté say institution nga fonk ko yi nga xam ne moo boole ñëpp tënk leen fonk gi nga koy fonk dafa delluwul ci sa bakkan mais dafa dellu ci li ngay aaral sunu borom li ñëpp bokk mais ñun institution amul solo ci ñun du ëttu attukaay du assemblée nationale du exécutif benn mbokk nee na ma Amérique seen constitution cent ans ngi nii wala ëpp na ko sax kenn mësu koo laal kenn ñemewu ko laal te kenn terewu leen ñu laal ko kenn terewu leen ñu laal mais am nañu aadawu ki fi nekkoon def na ñaar dem te amul limitation des mandats comme ni ñu koy waxee fii ci Afrique naan ko def ñaari mandat demal ñoom loolu amul foofu kenn limité wul mandat yi te kenn mënul passé ñaar ndax ñi ko njëkkoone def def nañ ko c'est ñu respecté seen institution yooyu ba kenn du fowee charte ñun nag fii président bu ñëw ak say président bu ñëw ak constitution bu bees réforme réforme yu dul jeex benn cinq mën nañ ko réformer ñaar yoon nit ñi tamit fonk ñu loi yoon moo tax institution yi tënkul kenn assemblée moom dama ko jëlal ña fay dem kenn du leen segg ku mën a dem rek dem ku mën a mobiliser nit rek demal su ko defee charte yi war ci taxawu am réew ci assemblée ba soo demee doo ko fa def parce que yow la la fa yóbbu mooy sa salaire bi sa oto ba ak parti ba la fa yóbbu dëkk ba nga dëkk da nga def cinq ans ci bi ba jeexal doo mësu tudd seen tur seen ndox mu jafe sa yoon newu ci seen tali bu yàqu sa yoon newu ci lépp lu ñu war a am ci àq ñu war a ko fa yóbbu doo ko tudd parce que xamoo li tax nu yóbbu la fa exécutif la même chose jiital parti que patrie mooy li leen gënal mooy ñu fexe ba seeni parti di dund moo leen gënal réew mi des fi di dund ku nekk balaa ngay dem fexeel ba sa parti du dee sa parti na fi def cinquante ans sa parti na fi def cent ans ñu di ko donnante mais patrie bi moom nu mel baax na mooy tax ñuy sañ bu ñu ñëwee fekk oto yu réew mi moom nga albati ko def ci sa peinture parti yow loolu régime yi fi jaar yëpp def nañ ko loo xam ne patrie bi moo ko moom nga jël ko def ci sa peinture parti loolu am na lu muy tegtale ñàkk a ràññee gi ñu ràññee nag patriotisme ak militantisme mooy tax ba ku ñuy jël du ñu xool est-ce que yelloo nga liggéey ci barab bii dañuy xool est-ce que yow militant nga ci parti bi amna poste yo xam kenn du ko occupé te militant léegi pour ñu jox la yenn responsabilité yi nga am carte parti bi nek militant pour ñu jox la ko militantisme la néna na nak bokul ci lu ñuy tuddee bëgg sa réew néna itam ñu fexé ba ñafa nek nekk réew ma di def yitte ci sétal réew ma am réew day sat. ana ana ñan la war a dénk ñuy toppatoo lan mooy setal réew mi réew mu amul i canal pour nga gis pavage daanaka da ngay dem ba xolu ndakaaru pour nga mën a gis benn pavage rek bu normal pavage képp nee na loolu nag li muy teg tegtale mooy dañu ràññeekul di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nee na itam xàmmewuñu bëgg lu baax ak bëgg sa bopp bëgg lu baax mooy lu baax li ku ko mën a amal baax na bëgg sa bopp nag mooy yow loolu tànk defoo ko baaxul am na koo xam ne li ko teree nangu ne lii baax na sa parce que moom bokk ci kese mais moom nag lépp lu mu bokk baax na mais lu mu bokkul baaxul mais boo bëggee lu baax rek nga bëgg réew mi am lu baax lu baax loolu ci loxo ku mu jaaree na la neex mais bu fekkee bu jaaree ci yeneen loxo du la neex mais bu jaaree ci sa loxo mu neex la yow bëggoo lu baax sa bopp nga bëgg nee na itam nit ki xàmmee bëgg réewam ak bëgg football du benn gis naa barki démb bi nu jógee ci match bi sénégalais yëpp ma bu gis mu takk ab drapeau wam man dama bëgg sama réew ma ne lii du bëgg sa réew de takk drapeau brasa nii rek ci sa loxo bi parce que da nga bëgg réew mi takk drapeau def sa version rouge sore na loolu bëgg football la bokkul ak bëgg sa réew bëgg sa réew leneen la bëgg sa réew leneen la misaal bi ma la ciy jox mooy footballeur yi demoon di defendre drapeau wu Sénégal bi ñu ñëwee ak riir mi mu àndal parce que nit ñi nee nañu dañu bëgg parce que Sénégal moo gañe montant même soos la karatéka bi gagné de même chose la mbërëm làmb mi gagné de. même chose la basketteuse bi gañe wala basketteur bi même chose la jàngkatu alquran bi gañe mais bu ñëwee du feeñ fen nee na bëgg sa réew ak bëgg sport jotewuñ dara sinon day mel ni que ku nekkul footballeur yow amuloo njëriñ sa réew ñu bàyyi xel ne nit ku nekk war nga fexe di jaamu yàlla fa nga ne ci jaamu yàlla yi mais patriotisme ajuwul ci nga nekk footballeur gis naa benn mbokk bind benn texte mu ne moom da daan football papaam di ko aaye papaam di ko tere football di ko soofantalal li muy def barki démb bi Lions yi génnee ñu may leen cinquante millions ak ay terrain nee na fajar ko papa ji yee ko xanaa tey demoo entraînement tey xanaa doo dem entraînement xam nga góor googu bu demee ba bëgg doomam di def loolu bu ëllëgee succès bu doomam am bëggatu ko parce que réew mi lay liggéeyal déedéet daf ko bëgg parce que lim ciy am la ko bëgg parce que lim ciy am la gis nga yooyu bu ñu ko ràññeewul réew mi du dox mais mën nga liggéeyal sa réew ba sa réew gërëm la sa suuf kontaan ci yow ba boo deewee sa suuf di jooy loolu day am am na ñoo xam ne bu ñu deewee suufu Sénégal jooy leen wallahi alladi laa ilaaha illa huwa te kenn xamu leen waaye bu ñu deewee réew mi jooy am ñoo xam dañuy génn àddina asamaan jooy leen suñu borom wax na ko ci alquran nee na jox naa fi ay nit puissance bu ne ci àddina jox leen lu ne ci alal ñu yore lépp luy koom mais bi ñu deewee asamaan jooyu leen suuf jooyu leen ñu xam ne kon ndek asamaan ak suuf danañ jooy nit ngir njëriñam loolu tax am ñuy alerté baax bu nit yi nëree tëb am koy dànkaafu di bës ndax nit ñi dal dafa bokk ci liy wane da nga bëgg sa réew nga jéem a aar sa réew te bokk na ci aar sa réew mooy nga aar ko ci mbon mbon yi ñëw di ko gaar si bokk na ci mbon mbon yooyu muy jikko yu ñaaw yu bon yi Occident ne dina ko xëpp ci réew mi ñu taxaw temm ne du fi tuuru aar ko ba mu jaral la sa bakkan loolu ci bëgg sa réew la bokk taxawu sa réew ba lépp lu ko nar a yàq nga taxaw ci même bu ci sa bakkan di des wala sa alal di ci dem loolu taxawee ko farate piir la kon loolu ñu ngi ciy ñaan jullit yëpp ñu am ci taxawaay bu am solo boo xam ne bu ëllëgee Sénégal bi ñuy gis mooy Sénégalu jom Sénégalu kersa Sénégal yu jikko ju baax Sénégal yu jikko ju rafet